donc révision constitutionnelle bu ñu defoon. mooy bay référendum bi 2016. Euh, référendum bi dañu wàññi durée wu mandat bi maanaam diiru mandat bi jëlee ko ci juróom-ñaari at indi ko ci juróomi at wante kenn laalul euh, dogme bi nga xam ne mooy principe bi nga xam ne kenn mënu fi weesu ñaari mandat donc mënuñu sax wax mbirum rétroactivité parce que li fi nekkoon jógu fi bu amoon lu bees mën nañu engager le débat. donc d'un point de vue juridique Macky Sall xam na ni mënta def ñaari mandat moom wax na ko même ouverture du dialogue politique jëmmal na ko ministre de la justice am ba muy def vote bi chaque fois da doon dem ba naan sénégalais yi foog ñu xool nan la ñuy jàngee texte de loi lii président mënta def lu weesu ñaari mandat donc loolu sur le plan juridique la sur le plan politique